ndigali doomam ak ci sëtam tey ndakaaru la ci zawiya ci Haj Malik radiallahu taala anhu ci ndigali doomam ak ci sëtam ñu ngay nuyu ni ko sëriñ bi waxee Cheikh Ndiaye ak ñi ko sëf di nuyu góor gi Ismaila ak ñi ko sëf waa jamia bi ñu ngi leen duyu bu baax man xam naa ne raison bu nekk nit jóge na fa fanaan si fii xam naa it ne diine yi tariqa bu ne nit a ngi fi ku ci fanaan si ko ca bokk ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci ndigali sëriñ bi di nuyu Abbas te it dama bëggoon balaa sëriñ bee dem fa ñu yemoon ak lonk ko ba keroog comme boo fay fii ñu lonk ko fa waaye balaa dem ma wax tuuti ci loo xam ne moom réere bu ko waaye xëy na sax mënu ko waxe Seydi Rawxaan dinaa wax ak yéen léegi ci alquraan li leen tiimay lan ak na mu leen tiime daa leen wax léegi ci alquran fi ngeen taxawee lan ak li ko féete suuf naa leen wax kenn ku ci ne yaay kan ak passage si nga jaar ba jëmm dinaa la wax it boo fi defaaree foo jëm ak la fay nekk dafa dëppoo ak li mu ubbee dee na léegi sëriñ bi ne ko keroog bi suñu baay bu baax bi nelalee Mawlana Xaaj Maalik radiyallahu taala an ak tey ku ci boole vingt deux boole ci quatre vingt trois dafay nekk soixante trois cent quatre yu na bi dund ma ne ko bu suñu baay bi yeewu woon ak ñi mu bokkaloon lii fii fekk bu ko ja bunti jàkk di mel nii kaa ci guddi gi ñu tudde ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yeddeel du bari sëriñ dala naan lii lañu war a wax ne la fii lañ ko war a wax ne nii lañ koy war a jëfe Maodo bind na li ñu war a wax tabax na jàkk jiñ ko war a defe def na it ñu gis lii nga war a lii nga war a def fii nga ko war a def nii nga koy defee nii nga koy defee uswa bokkul ak xutwa boo gisee ne bi di bëri poids ci fu mu def attaquement dafa nekkoon xutwa tun ëppoon na uswa si daal naa di bind na ne nii la tabax na jàkk ne fii la jiitu na dafit ne nii la ci bind ne la lii nga war a wax tabax na la fii nga ko war a waxe jëf na leen nii nga ko war a defe wàcc waaye dara lëndum dara lëndumul gannaaw dara lëndum lëndul lëndumul Saïd Rawaan أيدك الله وساعدك صيدا من سيد الربانية وأسرار الإلهية من سيادة أحمد تيجان بواسطة شيخنا حاج مالك رضي الله تعالى عنه ووالدك الكريم رحمة الله عليهما وعلى جميع المسلمين يوم ku ma wax rek ku nangu rek yow la wax dama ne yow yaay kan nan jàng saru ñox muumin jëlal de un à dix-huit aaya nga gis ne juróom-ñaari matière ci la yàlla composé nit set mu paral mu seet lu ko war a dundal mu posé juróom-ñaari comme posé yu génn ci suuf mu di ko dund nit ki war a laaj ku ko tiim mu defal ko juróom-ñaari asamaan mu tiim ko sëriñ bi fële ca tibbaab ba doon nañu waxtaan lépp ci économie di waxtaan lépp ci cosaani nit ak lu koy doxal dañ koy korosé fii ndax alquran dafa wanante boo dóoree mu gëq la mu seqoon nga dóor mu gëqaat la mu seqoon demal fële ci isaa wax xatti nga ñëw composé ko fii ci la aqamu bi yowm alqiyaama ci mujj dafa wax ni yaxlubu l insan ami taraxtahëba doomu aadama peem yi ma def ci moom ak peem yi ma def pour mu jëriñoo war naa tàkka xel ba defe ne dama koy bàyyi mu continuer rek noonu dem déedéet xam nga lu tax alam yakun nutfa tontu ma ndax ba mu nekkee nutfa tarak naa u sudda yàlla ne ndax nit nekk woon di toq ndox nga ne ah kay mu ne ba mu dee toq ndox ndax dama ko bàyyi rek mu continuer di toq ndox kay nu mu mujj su ma kan waaw ndox ba mu nekk alaxadan dama ko bàyyi noona déedéet fa xalaqa mu bind ko fa sawa mu yemalay ciram mu ñëw ci addina yem ma ca nag bu dee kenn benn teer boobu kon dañ ciy doxee addina sax waaye nag fa jaaxle minu sow jëy ni ma fexe ba defaat ku góor ak ku jigéen pour ku góor kooku ma jëlaat ci moom lu mel ni la ma jële woon ci góor kële dénkaat ko ku jigéen ku mu mel ni fa ma ko dénkoon génnewaat ca keneen keneen kooka nag muy toq boo xam ne du fees loxo ak a riij ak a bëri li mu bokk ak a bëri li mu làmboo toq bii kawara ngi ci yaxa ngi ci yàpp ngi ci yuq ngi ci dera ngi ci pexe ngi ci dema ngi ci jur doom doom ju jur doom doom jooju jur doom a ngi ci toqante boobu la juróom ñaar bopp mbuur moo tax maa ngi waxtaan ak yéen tuuti yéen sëriñ bi am na laisser passer boo xam ni visa bii dem àjjana balaa koo am juróom-ñaari document yi di nga ko am bu ngeen yóbboo ngeen déglu ku am carte na uti léegi trois complété ku am six na uti benn complété ku complété na ko garde bu baax mu bañ ko ricci ku ci amul benn na ko uti foog na dellu gën xanaa xam moom la noonu xaaj bi xatak lan la dafa am xasu taxqiq ak taxrib ak taxmila ak taksira ak xaaj boo xam ne dañ ko doon muñandiku mu teer ci kaw nit ñi bëtt leen julli yi dañu yàgg di julli di déglu nag bi di déglu alquran di yàgg di julli di déglu nag bi di déglu alquran waxuñu leen dara daan def rek alquran ne tën muy suratu mu'min cent dix-huit aaya la maa ngi fa dix-huit yi bàyyi la cent nga ma compter seen la ci yaay kan ak foo jaar ba doon lii nga doon ak leen tiim lan la ak li nga toog ak li nga toog ci kawam lan la ak fu ngay mujj fan la ak li ngay jàmmoo yàlla lan la comme trois joon ñaar asamaan la yéeg tiim juróom-ñaari suuf ci nga toog juróom-ñaari passage nga passé juróom-ñaari cër la la sujjoo tëndalul loola sant nga sujjoo te ko ko kon yeeyoo na ko ndax wax na wax na ca suratu yunus cinquante huit cinquante sept cinquante huit yunus dafa ne yaa ayuha nnaas qad jaakum mawisa min rabbikum qad jaakum min rabbikum mawisatun وشفاء لما في الصدور ووضع ورحمة شفاء لما في الصدور دي كلمة عقلا قد جاءكم موعظة لما في الصدور والشفاء لما في القلوب وودا للأرواح أي nas boobu moo tënk l'islam yëpp moo isha mooy tariqa shifaahu mooy tariqa uddan mooy aqiqa raama moo leen kuwaati ñoom ñëpp qad jaatkum lay jeex na qad jaatkum dikkal na leen fu mu jóge min rabbikum ci seen bopp lu dikk moo isatun tariqa yamuma ce wa shifaun mata ce ka fitar yamuma ce wa uddar mata ce aqiqa te guma ce wa rahma ma kuloolu leen ko yërmande di ngeen ko mën a jàpp am na ñu ne shifaun qad jaatkum mawisatun ne nañu fa bi rahma fa bi fa bi fa billahi wa rahmatihi fa bi rahmatillahi fa bi fadlillahi wa rahmatihi nee nañu fadlullahi moo di alquran rahma mooy l'islam ñee ne l'islam mooy rahma fadl bi mooy alquran ñee ne fadl bi mooy Muhammad rahma mooy di Ali ibn Abi Talib daf ci def tafsil ndax wa ma raat situna sharaanina moo tax mu génne loolu soxna si Xadija rasool daf ko ne nag ma baal Jibril ñëw na fi noonu ngay gisee médecin bu ñëw ci malaat bu mu yaakaar ne jeexal na mu seet ko mag ca famille ba déey ko ko noonu la ko Jibril wax ne ko soxna si dina dem tey paral nañ ko ca aljana suñ borom nee na naa ko bégal ci benn yéen yéen bu rafet buñ ko defal ci ëttam ci àjjana mu ne ko nga baal ma di nga dem tey barsax maa ngi lay yóbbanti ci sama ñaari soxna yu fa nekk mu ne ko defoon naa ne man nga jëkk a jël mu ne ko waaw waaye yàlla daf ma may ñaari jabar lu jiitu sama judd lu tax mu jiitu juddoom Sidi Hadj Malick woy na léegi ne keroog bi nabi génnee ad bi nabi ganee addina am na délégation bu jóge aras jóge aljana di uurul ayni di ndokkeel si soxna aminatu délégation booba teet ba ñaara ca nekkoon ñu du nit parce que nit ku di jullit ku jigéen ku di jullit bu demee aljana mooy ilif jigéenul xoolal xaymiya ndax li ñu bokk ci xeetu Muhammad tey tax ñooy ilif seen wujje yooyu ñu àndandoo nag ak seen ñaari chef de délégation ku ñuy wax Mariama moo jur Insa ak ku ñuy wax Asiyatu bintu Masaim jabari Firawna la woon soxna si moo wax ne man day xale bii daal jaaxal na ma keroog bi ma ko muccee fajari keroog sama néeg bii ay jéeg ñëw na fi ñoo xam ne ñu ngi weexe ne perkaal ñu ngi gudde ni tàndarma seen bët yaa ngi toll ni neni bañ jooli jigéen ñu rafet noonu mosuma leen gis du ci portale du ci tukki ba ma leen gisee nag tiit naa bay bëgg a jóg am kenn ci ñoom ko ma ne bul tiit man nit laa kii nit la yaay sunu goro yaa jur sunu jëkkër ñii nag waa àjjana la dañ ñu gunge si pour ñu ndokkeel si la kon bu ko nee may nañ ma jabar lu jiitu suma juddu dëgg la xaaj Maalik ne na waxat raxat teg na bëtam moom kan amina ñu mu gis niswatan ay jongoma xat xul na waxante naag moom asiya tundoo suñu wax asiya asiya nga gis yàlla ni mu màndoo Firawna yëg ne na jabaram a nga àjjana Firawna mi ngeen di dégg jabaram a nga àjjana nabi lañ ko jox sax mu denc ko ma waxaat lu gën a yéemu loolu ma waxaat la leneen lu gën a yéemu loolu moo di luutin jabaram a nga safara abbas yonent yàlla luutin jabaram a nga safara yonent la Firawna noonu yàlla bi jabaram a nga àjjana ma wax la lu gën a yéemu loolu boobu noohin doomam a nga safara aboo jëlin doomam a nga àjjana xat xul na ñoo ko wax ne asiya asiya bintu imrana ñoo ko ne ti ki ñeeno àndal woo jigéen la uraay ne la laa fekk nii bul tiit day ñëw ngir lotteel soxna soosu moo défendre na bi moo ko jox boppam bi mu amee vingt cinq ans rasulullahi haj malik ne na fii ci téeréel bii ñeenti tukki la tukki bi mu amee sept ans tukki na lu ko taxoonu tukki dafa wànnentoon wànnente wu metti maamam yóbbu ko ci benn labbe bu bari woon xam-xam bi mu dellu si tukki waatul ca déwéntale maam ji dee ñu yëpp ko baay bu ndaw baay bu ndaw bi néegula tàggoog moom néegula tàggoog moom juróom juróom-ñaari atam ci la tukki woon tukki waatul juróom-ñett tukkiwul juróom-ñeent tukkiwul ba fukki atam ak ñaar fukki atam ak ñaar mu voyagé waat voyage boobu nag saam la jëmoon ànd ak papaam bu ndaw ndax boobu góor gi néegu ko fee bàyyi te ñu ngi toll ci liggéey dafi commerce mais voyage boobu benn labbee gis na bi ak ko góor gi ci mbooloo mi ne ko xale bi ku ko ilif ci yéen mu ne ko man mu ne ko ana bàyyi mu ne ko man mu ne ko bu ma nëbb wax ma dëgg ki bàyyam dundatul mandarga yéen a gis tawrat bàyyi ko leen jiil mooy kii kay Muhammad dama lay laa biire nag dénkaaneel sa bagaas mbaa nga yóbbante ku la doy ànd ak gos bi wàññeeku parce que juróom-ñaar fukki la bi délégué nañ leen si de si mois si parce que yëg nañ ne dina voyagé ci weer yi te fii lay aw te buñ ko gisee nañ ko rek mu retourné fi hubbi dafa dellu tukki waatul nag tukki waatul ci juróom-ñaari atam ba ama jiidin bokkul subayrun waa abdasun ilaa yamanin saara bi ama jiidin udda waxtakimi bi mu amee fukki at ak juróom-ñaar tukkiwaat na yaa toujours fukk la jiim toujours ñett la deel toujours ñeent la boo ko boolee fukki at ak juróom-ñaar la rasulilah wayaase waat na booba yaman la demoon nag booba ñaari papaam la àndal yu bokk ak bàyyam baay waxu subayrun wa habbasun ila yamanin saara bihi ama jiidin udda wax takimi mu dellu si tukkiwaatul ba juróom-ñaari at fukki at ak loolu ma la wax ñaar fukki atam ak juróom-ñaar mu def ci première voyage nag soxna si seetlu ko jox ko capital boole ko Mayshura mu dem defi commerce gaaw a ñëw indiwaale alal ju bëree bëri dinañ ci dem nag dafa gudd naka la ñëw nag soxna si ne ko daal sama xel lëfa ci nekk ñe nañu dafa ut intermédiaire ñii ne moo ko waxal boppam dama la bëgg a jox sama capital ak sama bopp doon sa soxna ñu defal ko ko mu ànd ak moom ànd naa ànd naa soxna soosulee ñaar fukki atam ak juróom yu toftal ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom ci la ko takk génnaatul tukki génnaatul tukki génnaatul tukki ba bi mu amee cinquante et un ans yu toftal un mois ci la dem Taïf bi mu jógee Taïf nag génnaatul ba ni mu demee Medinatul Munawara génnaatul bi mu duggee Medinatul Munawara loolu bu demee xeex yi dellu si waat xeex yi nag werante nañ ci lim nañ ko ni nañu wi kaa maxaasihi yaadi mubridan kabidan alal xilaafi atana min sawil xadami may ma ko may ma woy defee du ngeen woy da ngay wax ne maxaasihi attaquement yi nabi def xaaj Malick ne la huit cas la chiffre huit cas ñu ne wóor na mu ne ala xilaafin ci uute ataana goo xam ne dikkat nañu min sawil xadami am na ñu ne huit cas la xeex waaw six quatre livre un loo jàpp waaw six keef vingt livre un waaw kañ maxaasi xeexam yépp ñu ne waofe mu ne fii kaar ñu ne wóor mu ne ala xilaafin lakat ataana min sawil qadami am nañu wax leneen ñooy ñooñu lu mu wax mu ne am nañu ne fii kaar ne am nañu ne maxaasihi kabidan la keef vingt ba deux muy ñaata del quatre léef gi boo ko boole classat bi li ci gënoon moom aróola yem boo koy bind ak loxo da ngay xonqal chiffres yi ñuulal baat yi parce que boo calculaalee liif gi rek dal di daanu mu joxaat la vingt sept deux fois te it daf ci tanwin ngee tax rek ñu dóor ko fi waaye bokku ci am na ñu ne maxaasi yi vi kaara am ñu ne déedéet kabidan la ala xilaafin ataana min sawil xadami ñu ne yooyu ñetti wax rek am mu ne déedéet am nañu wax leneen bi ka maxaasi yaadi am nañu ne yahdi la yaa diis yàlla ragale di diis loo boole muy vingt alkubeer di cinq del di quatre muy vingt neuf du noonu goñ xadijitu moo ko fegoon nag nee naa bu deewul woon abu talib deewul dëkk nay ñaaw waaye taxu du am parce que ñoom ñaar ko séqoon xam nga xadija tooy kan xamula ko de mooy borom capital bu rëy bu baax bi borom aleel ju baax te tàllal loxoom ku mu dëkkal nga wekk nga rus ko olof na ne ku ëmb sa sanqal waaw kañ kenn ki di abu taalib abu abu abu taalib moo di la ñuy wax abdu manaaf mooy bàyyi aliyin mu bari taaw te ñu ñemeñ borom taaw yu bari te ñemeñ ku mu dëkkal nga wekk ko ku ñu wekk nag ak ku ñu rus ku ñu séq nga ñoom xadija toon ci góos lu ne bi soxla mu faj góor gan ci durwaat ku ko sonnal mu àkkalaa ci saawam mu ñoom ba yàlla newee mu taxu nag la leen reyandoo ci benn at ci la ñu jëm si nag léegi du benn at nag benn semaine la benn weer la du benn weer benn semaine la xaaj Malik waxoon na la keroog ca Tiwaawan kañ la Xadija kañ la Abu Talib faatu Abdu Manaaf doomin la waxoon na ci la faatu léegi nag rob nañ ko ba ñëw Rasulullah ngi desewul lu soxnaam soosu maamam deena papaam bu ndaw deena baayam bu mag bi it nelaw na ñooñu ñëpp nelaw na léegi nag Xadija tudd si xaaj Malik ne bi ñu robee góor gi baam benn bés ñaar ñetteel bala xew-xew bu rëy am ñu ne xew-xew ba lan la mu ne lan أنا ما أمننا ndeysaan abdou manaaf nelaw na abdou manaaf mooy ki bokk ak papaam ndey ak baay moom la yàgg ci loxoom lool biñ ko koy yëpp juróom-ñetti at képp la am moom la góor gu baax gi bind nekk na fa ba mu am ñeent fukki at ci loxoom ak juróom-ñett doomin ñeent fukki at ak juróom-ñeent ak juróom-ñetti weer fukki fan ak benn mu naaw e mu jaaxle kenn nekkatu mu def nag Xadija xaaj Malik ne weeru koor la ñu dee ndeysaan ñoom ñaar ñëpp mu ngi mel ni Mawlana ab abal abbas ahmad Tijani papaam ak yaayam a deendoo ci benn bis ba si alxames way lii ma leen doon wax sànq siq ne Sidi Haj Malik kenn ëpp ko fuglu rasulillahi ba mu naan l'islam feeñ na ci tumuranke day dellu ci tumuranke bii sëriñ bi doon wax ak bi ko maw day tontu téeméeri at la ak masasin masasin junne at la ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar mu def benn xasida dal ne ala ya rasulallahi yonent yëpp nag dañu groupé boo xamee ne ci repos la ñu nekk ci groupé la ñuy nekk ci benn place ne ngeen def
Thank you.